waaye caatu jokkal mu nga moom tamit ndeysaan entraîneur am di ko fomp suuf nekk troisième combat ci biir géew ni ah, quatre combat ñaari xale yaa ngi noonu waaye fils de BM arbitre baa ngi noonu ànd ak moom mu dem ci ardo bi la moo xew wee wala ndeysaan mi ngi noonu ndeysaan fils de BM moo ñu wan ginnaaw caatu jokul moom lañ jàkkaar lool di wax njaga waaw ñaari xale yëpp kenn amu ko ci defet kenn amu ci kenn amu ko ci defet ñoom waaw waaw dina am mi ngi toll ci 6 combats 6 victoire waaw waaye kii di Thiatou mi ngi toll ci 4 combats 4 victoire Thiatou Diokoul waaw kon tey ni nga gis combat bu neexal combat bu nar a neexal noonu nekk nii ndeysaan ndeysaan mi ngi noonu troisième combat <laughs> troisième combat ci biir géew bi la ndeysaan ñoo faal ma ne ah, nekk ay jànk tamit de. mais <laughs> <laughs> ay jànk <laughs> waaye yow waaye yow li ngay sang yëpp ci farata nga xëy sangu waaw waaw. caatu jokkul caatu jokkul arbitre bi dem na sifflé na ndeysaan. troisième combat ci biir géew bi tey nekk samedi 27 juillet 2024. journée Bawal production ndeysaan. ñaari xale yi nee naa nekk ci biir géew bi kenn amagu ci defet Fils de BM bàyyi ko fee ca Bawal Baye Thiatou Diop ñu ko fee ñaari xale yaa ngi noonu roofoo nañu ñoom ñaar attention Thiatou Diop dool na Fils de BM fayu laa ilaaha illallaah xale combat bi combat bu dee waar a ci biir géew bi Fils de jàppante waa nañ ñoom ñaar robo ne waa nañ attention dañoo ñimante ñoom ñaar li ñuy bëre attention Fils de BM mu Fils de Fils BM mu bëre bi lay seese waaye caat xeex bi la bëgg a maa waaw génn na saako yi génn na saako yi waaye loolu moom génne boppam saako yi caat jokkul génn na saako yi day da ngeen a jugee waaw waaw jël na avertissement sot de délibère arbitre bi sif la waana ndeysaan waaw waaw fils de Bémb Bawol la jugee waaw c'est loolu dafa am solo loolu laa la waxtaan ak moom laa la waxtaan ak kii sàng ko Assane Ndiaye comme ni def la def jël mbëru Bawol boole leen mbëru Dakar loolu baax la waaye nag kenn du def waaw am solo la moom tamit waaw dina doy waar lépp dina yëngu. ndeysaan. ndeysaan. waaye caatu jokkul. fii sa BM daw nañu jàppante waa ñoom ñaar. fii sa BM bëre bi la bëgg attention. war na ko ndooma. penalty la ko def. penalty la. penalty la attention. attention waaw oh, waaw daan na ko. laa ilaha illallah. cey xale wi. cey fii sa BM. cey fii sa BM bàyyi leen ko xel. laa ilaaha illallah. waaw waaw wër ko ndomba. dafa mën a bëre xale bi. bi di bañ. xale bi mu sañoxal ko boole ko kal. dafa mën a bëre. ndeysaan daan na ko. sept combats sept gi ñëw na. siyaar naa la. ay conseil waaw tey sama père dama sama grand il sukay moo ma andi waa Bawol. yabuma leen quoi. parce que man xam naa li topp sama ginnaaw. tey Bawol trois quarts lan ma jëlal barke maam Seera Fall kon du yoon may ñëw fii di ne fi naa damay négocier sax wala waaye ji mais maa ngi sant yàlla bu baax daal maa ngi sant yàlla. nga xam nga ni xale bi nga daan musul daal. non xam naa ko bu baax moom jàmbaar la gaynde la Baay Fall la sama waay la maa ngi koy ñaanal euh, boo amaatee combat bu dul waa Bawol yal na ko yàlla may dam parce que moom borom baax la quoi waaw di sant nag waa Bawol yëpp. xaar ci xeex bi nga jee ko laaj rek booy Bawol lañ jógee te Bawol daa sori danoo war a ñibbiwaat. mënoon naa fee ne di xeex di lii nii di yàggale ko baa ma ne xaar ma jàpp ko rek su ma ko jàppee rek mu jeex. foo jëm. maa ngi fi lamb. foo jëm. lamb na ma waa Bawol jàppale. daa am lu ma bëgg a yóbbu Bawol. Ah. na ma waa Bawol jàppale pendant un an. yaa ngi si ñaata combat. bii mooy sama septième combat sept victoire. ah ndaanaan nga foo jëm. samay morom rek soxlawuma benn paa nag mais samay morom ku ma ci lamb boole damay bëri. comme kan ñëpp. ku fi neex rek doon sama morom ci lamb ji. waaw ram Cees laa fi bàyyi. li doon Thiès jëm Bawal. waaw ñooñu laa fi bàyyi. bu weesoo ñu mais lu commencé Thiès jëm Ndakaaru. Ah. ba pare damay bëre ak ñoom. kon baax na jaajëf.